yéenekaay groupe bi mu ngi ñuy xamal ni Abdou Mbow ci boppam daal dinay xam ne ni kon ab motion de censure la fas yéene déposé ni ki tey ji ngir kon ñu daal di tas gouvernement bi ci boppam Vox Populi di ko dëggal di xam ne ni kon mbetteel amu ca ndax ni nu ko doon xaare majorité parlementaire bi ñoom ñëpp ànd nañu ne duñu woote lu jëm ci tas yooyu la kuréel ndax juróom fukk ak ñett ni ay député ñoo woote contre juróom fukk daal di ci ànd yéenekaay bi di xam le ni li waral nag bennoo am bile lim ci député bokk na ci Mariétou Bintou Dieng bu réew mi ak Alassane Ndoye ñi nga xamante ne kon ñoo ñëw tegu ci juróom-ñett yi nga xamante kon Benno Bokk Yaakaar am na ko ci biir assemblée nationale li Benno Bokk Yaakaar def ni ki démb ci gis ni dañoo yokk rek di rub dund conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales yéenekaay an bi dikkaat na tamit ci altine gu démb nga xamante tàngoon na jib ci assemblée nationale taxawaayub intercoalition Yewwi Wàllu mi dikkaat ci solo si nga xamante ngir tas ñaari kuréel yooyu Benno Bokk Yaakaar ci beneen fànn ba ñu doon sàkku nag ci nguur gi ñu daal di fexe ba jëlee fii li jëm ci fonds politique yi ak fonds commun yi nga xamante ne noonee la ñu ko digle woon kàddug Ayib Daffé fës na tamit ci biir Le Soleil yéene kaay député bi di xam ne ni kon yëf yi war naa mën a yomb ci ñoom ndax ab simple décret rek mën na fi jëlee Aminata Mbengue Ndiaye ak tamit kii di Abdoulaye Daouda Diallo fii ak ñuy xam ndax loole mën na antu Sud Quotidien moom nee na Assemblée nationale nee na ñett Faye lu jëm ci mbëbëtam ngir tas HCCT ak CSE te majorité parlementaire bi yamuñu ca ndax nee ñu tey ji ab motion de censure la ñuy déposé lii xew ci assemblée nationale mooy wane ni kon Benno Bokk Yaakaar ci boppam moo bloqué jom Diomaye Faye bu ñu sukkandeko ci enquête yéene kaay mi gis ni donte am na ay xiroo ngaayoo ci biir Benno Bokk Yaakaar waaye teewul ci biir assemblée nationale démb wane nañu déggoo dëgg defab say ngir gantal loi bi nga xamante ne kon mu ngi tukkee ci nguur gi ki fa teewaloon nguur gi ci assemblée nationale national di joriñ ju ñu dénk wàllub yoon Ousmane Diagne ci biir enquête mel ni kuy dalal xelu askan wi ak député yi tamit député yi lajuloo kii di Bassirou Diomaye fay bu ñu sukkandekoo ci Walf Quotidien ndax yéene kaay groupe Walfadjri bi lim na lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñett ni ay député yi nga xamante ne ñoo wote contre loi bi daa di jàll juróom-ñett fukk daa di ci ànd bokk na ci ñooñee député yu ànd ak Khalifa ak Babacar Sall nekk foofee ci assemblée nationale li xew ci assemblée demb mu mel ni xeex bu mujj la ko observateur méngal tàmbalee suñu naataango yi nettali li xew démb ci altine gi ci pencum ndaw réew ma yëngu-yëngu yi kàddu yi ñàggas yi nga xamante ne ñu ngi ko doon jokkalante seeni biir mu mel ni xeetu fayantoo la ñu nemmeeku démb motion de censure bi nga xamante ne Abdou Mbow yëgle ne ko yéene kaay groupe Futur Média bi di jàngat ana naka la mën a antoo li ñu njort ni ci biir ONAS nag l'observateur fësal na ci kàddu yi nga xamante ne moo tukkee ci jëwriñ ju ñu dénk wàllub yoon nekkoon ubbi nañ ci ab l'enquête la ko xam ne ci assemblée nationale projet de loi suppression HCT ak CSE bi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar wane nañ ci seen bopp le témoin yéene kaay di xam ne daal Benno am na ndam ni ki démb waaye yëf jeexagul axakay ah, yëf jeexagul waaye yor-yor bi neneen la ko gisee ndax suñu naataango yi dañoo jàngat ni Benno Bokk Yaakaar li mu def ci assemblée national ni ki démb dafa mel ni dañoo gas seen bàmmeelu bopp ki gas bàmmeel kay mooy Macky Sall les éco duñu xamal ni njiitu réew ma woon suul na coalition li mu fas yéene samp beneen coalition bu bees bi mu jàpp ni dafa war a gën a méngoo ak jamono ak li nga xamante ne mooy seeni bëgg-bëgg L'As Quotidien dëggal ko ne njiitu réew mi Macky Sall ci boppam daa dinay faat Benno Bokk Yaakaar ndax li mu samp ab cadre bi mu jàpp ni kon gën naa méngoo ak seeni bëgg-bëgg li méngoog dëgg ci faatuk maman Aïcha Ndonga mu ngi ci biir Libération yéene kaay bi ñu xamal ni kon ki ñu njot ni moo def lu nu mel di xaritam ci boppam toll ci fukki at ak juróom am na retour de parquet tey lay xam yoon ana fan la Saliou Ciss di mujj ak carrière am Rewmi Sport dikkaat na ci xibaar bi nga xamante ne moo jëm ci fin de carrière mu mel ni moom suwër bi ci boppam weddi na ko donte li mu ci fësal am na ci ay lees waxul ci jamono jooje nag yéene kay groupe promo consulting bi di ñu xamal ni gaynde yu Sénégal yi moom door nañu seen wàccaay jëmale ko ci bëccëg yu njëkk ñeel éliminatoire CAN 2025 bi démb nag ci seen séance bu njëkk record yéene di ñu xamal ni fukk ak ñaari gaynde képp